toog ci deux cent vingt et un people mhm. ko baaxoo di def di mhm. def euh, benn waxtaan ak euh, docteur Mouhamadou Wade mhm. damay dem ci beneen question réew mi umpale woo bu ñàkk liggéey bëri na ñu leen di wooy chômeur ñuy chômeur sant yi bëri na wàllum liggéey nag ku ne yaa ngi fëgg bunt bu ne mais pour nga am liggéey dafa jafe loolu nan ngeen ci mën sa yan zaari ñaan ñu leen seet si woon tey ko waaw comme ñaan bi ñu doon wax léegi rek wàllu liggéey euh, am na see ñaan yoo xamante ni wa man araada an amalan bu fekkee dangaa bëgg mbir wala eh, liggéey fenn ci wàllu eh, sultaan koo xam ne buur la wala mairie wala min xayrihi banque wala lu mu ci mën a foo ci bëgg dugg incha allah boo ñëwee nga jox ñu turu société bi ak sa tur ñun dana am nuñ liggéey ci tur yàlla eh, mujibu am tur yàlla la buñ ko ci defee incha allah am nuñ koy doxalee bu soobee yàlla fa nga bëgg dugg dang fa bokk te dang fa liggéey mm-hmm. waaw loolu am na mm-hmm. Mm-hmm. ku xamante ne nag euh, maanaam jabaram dafa fay. Mhm. ñu bëggoon cee def tawféex ba mu delloowaat ko ci loxoom. Mhm. nan ngeen di def ba mu delloowaat ko waaw xam nga euh, benn euh, ëpp naay def ngay jëflante ak doomu aadama te seetu ay mbiram muy kiy wut examen ak muy kuy liggéey muy kuy wut visa ak muy ku tukki muy kuy wut këyit kum ci mën a doon muy ku jabaram dem ak muy kuy takk dañuy seet mbir yi danañ def seet. seet bi nag am na ci ba ñett ba ñeenti façon danañu seet ci ramli da ngay toog dooñ wax dara ñu tomb wax la am na ci loo xamante ni tabia la dañuy xool ci tabia yi nit ki fu mu bokk ak fu mu féete ñu xam am na ci loo xam ci biddéew bi lañ koy xoolee am ci loo xamante ni istixaara la ñuy def guddi bi yonente bi sallallahu alayhi wa joxe dangay ngay jàpp julli tàllal say loxo ñaan yàlla ne yàlla axbarani ma bi haazal abd nag ma xamal diw lu nekk ci moom dégg nga bu ko defee yàlla won la ay mbiram loolu dañ koy def settantal mbiru nit ki xam lan moo ko tee am liggéey lan moo ko gàllankoor ak question bi nga posé bi nga mujj posé léegi nga fàttali mu ko ñu mën a wax ci euh, li ci jëm insha allah ku soxnaam fay voilà maa ngi ñëwaat insha allah bu ko defee ku soxnaam fay euh, kooku euh, dañuy ñaan yàlla yàlla delloosi ko bëri na fay sëriñ si yoo xam ne nag dañuy ñaan ndaw si dellu si waaye borom day ñëwaan ne leen ah man de sama ndaw si ñëw na waaye demaan na moo tax xam-xam boo ci yëngu na nga xam li ngay liggéey lan la xam-xam yi dafa des. Mm-hmm. parce que ñaan nit ki dellu si mu dellu si ak toog loo ko du benn. xam nga dégg nga waaw xam nga tey euh, dafa mel ni tey euh, nit ki ne sama jabar dem na. ñaari ñaan la am na ñoo xam ne xamuñu dañ yaakaar benn ñaan la mais ñaari ñaan la da ñaan mu dellu si ba pare moo njëkk bu dellusee see da ngay ñaan mu toog oh, <laughs> nga xam ni demaat du am waaw mais dangay gis ñoo xam ne ñi ñaan mu dellu si balaa quelque temps ndaw si demaat ñun dawaat ci sëriñ bi ah man de ndaw si ñoon na waaye demaat na waaw parce mënu ko toog la wala mënu ci dara wala xamu ko waaw parce que ñaan il faut nga yegg ci science suprême islamique science suprême islamique boo ci yeggee incha allah da ngay xam yoon ñaan dafa am yoon dafa am yoon mënoo wóolu nit ki mu ñëw ba pare te doo ko toogloo. comme façon ñaan bi bëggoon naa xam ko bëggoon ndax woon di nga leen defal tawfeex ndax ah, waaw bëri na jamono ji waaw bëri bëri na jamono ji trop parce que des fois day nekk ci jikko yi des fois tamit mu nekk def-def mu nekk liggéey des fois tamit meroo xuloo yooyu yëpp day am wàllu seytaane waaw yooyu yëpp day am mais loolu moom lu yomb la fa yàlla ndax euh, buñ ko defee ndaw si dana dellu si incha allah te bu dellu si dañ ko toogloo waaye danañu fay tamit ay bi am ci diggante bi ba nga xam ni danañ nekk si jàmm incha allah. Mhm. ba léegi docteur Mouhamadou Wade doguma la ci wàllum séparation maanaam. Euh, koo xam ne dafa topp jabaru jàmbur aussi ndax nga séparé leen loolu doon loo xam ne dagan waaw xam nga séparé moom euh, ay nit yàlla moom daf ko wax euh, wa maa kafara suleyman walakinna shayatina kafaru yuallimuna annaasa sixra maa yufarriquuna bihi bayna zawji wa mar'i voilà donc yàlla daf cee wax nee na Euh, seytaane yi dañuy def lu bon maanaam loolu xam-xam bu bon mooy xam bu ñuul am na si loo xamante ni daganul comme di taqale ay jëkkër ak jabar di taqale ay mbokk di taqale doom ak way juram yooyu yëpp dafa xaraam tifaaxan waaye koo xam nag ci wàllu lislaam ñaan yàlla la loolu ñaan yàlla la du njabar koo xam ni dafa topp jabaru jàmbur tëw bàyyi ba nga yëg ko yow bi jëkkëram te mënoo ci moom dara bu ko defee mën nga ñaan yàlla yàlla déddale leen ku nekk dem bu ko defee loolu alquran wax na ko yonent bi daan na ñaan yooyu ndax wa alqaynaa baynahumul adaawata wal bagdaa yow yawmil qiyaamati kooku alquran la te yàllaa ko wax sànni naa ci seen diggante eh, meroog animosité ba ñoom ñoom ñu tàqale ko parce que eh, yéefari dañ ko sonnaloon dañoo juboo woon seen biir sonnal ko ñaan woowu nag yàlla jox ko ko ñu ñaan ko yéefari jaxasoo seen biir séparoo xam nga pour ñu bañ a am doole pour nuñ sonalee lislaam ak diine bu ko defee nag séparé yooyu am na fekkente ni koo xam tamit doomu jàmbur la la topp yaayam wax mënu ci dara ba nga xam ni ragal na sax doom ji ñu ëmbal ko ci wala mu am ci problème bu ko defee ñaar ñooñ tamit mën nañ ñaan yàlla yàlla déddal leen ku nekk dem insha allah loolu ñaar ma seetlu ne ndax euh, ki nga xam ne fas nañ ko soxna jàmbur mhm. léegi dara lewu la ko mhm. kooku maanaam lu mel ni ay am na ñaan yoo xamante ni buñ ko defalee nit yooyu moom jaru sax ngay sori insha allah buñ ko bindalee nit ki ba pare suufu jumaa lañ koy booleel xam nga jumaa suuf si dafa sell la yaa ngi dégg buñ ko boolee suufu jumaa incha allah jox ko mu ko koy naan koo xam ni njaalookat la woon koo xam ni naankat sàngara la woon koo xam ni lu bon rek lay def yàlla day raxas xol bi ndax wa nunazzilu min al qurani maa huwa shifaun wa rahmatun lil ni la yàlla wax waaye li maa li shifaun li maa fii sudur day faj li nga xam ne moo nekk ci dënn yi te ñépp xam nañ xol bu feebaree rek Euh, mooy mooy waral yu ni mel xol bu feebar incha allah. jërëjëf am na solo docteur Mouhamadou Watt damay dem ci beneen question mu bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen tawféex lu bokk ci wàllum alal ju bëri. Mhm. mais pour ñu dimbale seen waajur problème la. am mhm. looy wax ci ñooñu ñi am du nangu ñu dimbale seen i mbokk. Mhm. waaw yonent bi sallallahu alayhi moom dafa ne yàlla nañu yàlla musal ci nay waaw nay bokk na ci feebar yi gën a garaaw. bu ko defee nit bu amee alal nay fexe di bañ a nay di ci dimbali jaamu yàlla yi di ci dimbali ay mbokkam waaw di ci def li nga xamante ni euh, loolu la yàlla bëgg waaye nag am na ci loo xamante ni tey jii bu fekkee da ngaa seeti nit bu am alal mu wóor la ne kii du la defal am na cee ñaan yoo xam ne buñ la ko bindalee nga sangoo ko incha allah boo demee ci moom dana yëkkati alal jox la. mu yow dana la may nay maanaam nay gim nay yow dootoo ko gis dana yëkkati jox la incha allah lu bëri te ba nga kontaan te moom du ko yàqal dara. incha allah est-ce que du affaire gàllaaj bi nga laaj. waaw est-ce que dina yëkkati waaw waaye alxuraan la ndax yàlla moo ne waadakumullahu maganima kasiratan taaxuzunaha yàlla moo diggoon yenent bi sallallahu alayhi ne ko ñi ngay xeexal ni ci xare badar man yàlla dig naa la danga leen gañe seen alal danga ko teg loxo. moo war waral loolu loolu bu ñu la ko liggéeyee far force alalam moom waaja da nga ca teg loxo tuuti bu soobee la <laughs> non mayo gi maye bi am na ci ñaari anam am na ci boo xamante ni da lay gis rek wég la sopp la yëkkati may la loolu ci sagoom la li nga def sa yaram moo tax nag mu gis la wég la sopp la yërëm la jox la waaye am na ci loo xamante ni force lay doon fa bu xital lazi kafara loolu moom am na ci ay ñaan yoo xamante ni bu ñu ko liggéeyee par force dana yëkkati alal bëri jox la par Euh, maanaam ça dépend parce que euh, li ñuy daganal ci parforce mooy tey sa yaay bi nga xam ni moo la jur ëmb la juróom-ñeenti weer yor la musal la ci lakk musal la ci lap musal la ci lu ne aar la ci ba nga toll fi ngay toll ba nga màgg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na aljannata taxta aqdaama ummakum ajjana mi ngi seen suufu tànk yi nga yor alal nga ne doo ko ci defal dara doo ko ci defal tus boo ñëwee ñu ñaanal la mu jox la alal loolu dagan na ne yonent bi mayee na sax ne ku dul sa yaay sa yaay kese moo am sañ-sañ sax nga wekk sa yére sa xaalis ne ci mu ñëw génneeku def ci ay soxlam te doo ci mën dara moom rek la ko lislaam may kon xam nga dagan na ci moom incha allah jërëjëf. Mhm. Euh, dañuy jeexale ci actualité du ma ne actualité nag suñu xel de dem ci Karim Xrum Xax. Mhm. nga xam ne mën naa ne ak euh, acteur la. ci mhm. lépp lu bokk ci wàllum euh, xeex. ci loo xam ne doomi aadama yi bëgg nañ ko ñoom ñëpp ñu ànd ci. ñu naan dafa feebar. loo mën a wax ci Karim Xrum Xax. waaw liñ mën a wax daal mooy. wax dëgg yàlla dégg nañu ko waaye taxul ñu xam bu baax baax baax euh, lan moo ci nekk waaye nag na jóg ci boppam mooy li mën a wax ndax téeméeri feebar a fii ci dëkk bi feebaru baatin la du feebaru hôpital. maanaam loo waaw maanaam nit ki yeneen salaat salaam jàng jàngale na ko jàngale na ko am na ci yenn mettit yaram yoo xam ne bu dee daj na ci yow bopp bi di metti ànd ak mbagg ànd ak tànk ànd ak laal muy metti na nga jóg ci sa bopp. wàllu liggéey da koy def wàllu suuf da koy def yenn biir yu metti yi ngay naan garab yi doo ci gis solution yooyu ay feebar baatin la yenn tëdd yi ba yow da nga daan jóg comme activiste xam nga activiste moo bi wax na boppam koo xam ne dafa active woon la nga dem ba yow mënatoo def benn activité war na xool boppam ci wàllu baatin loolu lu wër la lu am la te liggéey mën na tëral doomu aadama yenn métti di mën na nekk ay def-def ci doomu aadama bu ko defee loolu bu ci jógee incha allah yàlla mën na ko dindi. am na solo damay appuyé wu ci say kàddu rek mais bëggoon naa xam nga foog ne tëdd feebaram bii nii mënta doon ay xonjom maanaam mystique yoo xam ne gars yi dañ koo def ndax dooy xeex pour nit ñi mbaa pour ñëpp itam. ngawti mhm. ngawteeg wax jeeg yooyu noonu am na loo xamante ni ñenn dañ la sopp daal. waaw teew ko mystique mbaa liggéey buñ ko def. waaw man xam nga faw ñu seet mbir yi buñ ko seetee dañuy xam lu mu doon loolu moom dañuy leer nañ. waaye topp ñu kenn di seet ay mbiram te fekk nekkul koo xam dafa jóg jëm ci ñun mu yitteel ko ñu xool ay mbiram mais li ma leer ba leer moom mooy koo xam ni yaa ngi nekkoon ci say activité nekk say jàmm nga tëdd ba mënatoo def dara baatin moo ci ëpp même feebar bu ci amee baatin na ci ëpp mais feebar bu dee am na ci nañu wax ban feebar la parce que bëri na fi ñu feebar te mënuñ la wax ban feebar la boo demee ci docteur yi kon bu loolu amee rek xamal ni feebaru baatin la waaw loolu nag bu ci borom jógee incha allah yàlla dana ko may jàmm. Aliou looy wax euh, ci dégg ci forceewoon nag ñu ne ci nguur gi surtout président Marème Faye. Mhm. dañ koo def bëgg a defal benn jàppale ko maanaam jox ko xaalis mu faju mhm. mais dane soxlawul seen xaalis nañ ko téye looy wax ci waaw li ma ciy wax moom xam nga décision personnel maanaam nit ki moom euh, sa ngëm-ngëm ak sa pas-pas ak sa bëgg-bëgg ak sa décision wu bopp. Euh, mën nañ la may nga jël mën nañ la may nga bañ a jël loolu moom ci droit am la nekk waaye ka jóg tamit di def dañuy jàpp ne rek li yàlla digle moom la def ndax yàlla dafa ne fa axsinu waaw fa axsinu na ngeen rafetal kon loolu ci xeetu rafetal la ak def mbaax mbaax waaye nag buñ sañoon tamit mu jël ndax xaalis réew mi la rek te ñëpp ko bokk te ku tey képp koo xam ne tamit yitteel na la ci réew mi buñ la ci jàppalee nga war a mën a xam ni xaalis réew mi lañ la jàppale nga jël ko faju ci ndax itam doomu réew yi ñooy cotiser di fay impôt yi di yeneen ak yeneen loolu daal jàpp nañu fa lay mën a jóge bu fekkee tamit xaalisu moom boppam la moom soxna si tamit ba tey ci jëf ju baax rek lañ koy boole ndax nit moom li yàlla digle sa dëkkandoo wala sa xamee euh, bu fekkente ni lu mel ni dab na ko ah la jiitu ci moom mooy di ko dalal di ko defal waaye di ci def sa loxo itam te ñu ngi ñaax ñëpp képp ku ci yàlla mën a dimbali te mu dimbali ko tam eh, mu mën koo jël ay bonne volonté mën nañ ci taxaw incha allah ba yàlla def mu am jàmm incha allah. am na solo jërëjëf mu eh, Mouhamadou Wade dinaan la ani looy tàggatoo ak eh, ñi lay seetaan ci 221 people ci réew mi diaspora bi ak bitim réew fépp. Mhm. waaw li ñu leen di wax rek mooy ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp boole gën a góorgóorlu. jàppante nekk benn ndax Sénégal kenn mënu koo xar ñaar di remercier téléspectateurs yi ñi ñuy déglu képp koo xam ni euh, suñu jëmm ji nga xool nag euh, mën nga ñoo bañ a maanaam gisee ci yenn anam ndax lii ñuy woote lañuy ñaan nit ñi rek ñu bañ ñu cee gis ñun nañ gis xam-xam bi gis njëriñ li waaye da nga gis nit génn nga xool ci moom xëy na nga xaw a xeeb wala nga bañ a dem waaye xam-xam du mbubb du yére du dàll du mbaxana xam-xam bi njëriñal ñépp la te ku ku ku muy yitteel na la xam-xam bi yitteel waaye jëmm ji bu mu la yitteel ndax xam-xam bi yàllaa ko wàccee yàllaa ko moom ñun suñ jëmmi bopp lañ ci mën a njëriñoo dañ ko njëriñoo la ca keneen mën a njëriñoo te wërsëgam ne ci nañ fexe mu àgg ci ay loxoom incha allah